asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tàmbali samay kàddu di yóbbante nuyoo ci xalif général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke su ma ko nuyoo nuyu naa bépp njabootu sëñ Tuuba bu fi teew waaye nag ñu may ma ma am ñenn ñi nga xam ne mu tudd bëgg naa leen ci tudd muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke di ko jox wàccoowaayam di nuyu sëñ Mouhamadan Mbacke bi nga xam ne moom sunu dëkkandoo la fii teg ci sëñ Abdou Karim Mbacke bu Mbacke Baari di nuyu it sëñ Abdou Gaynde Fatma moom mi nga xam ne yàgg nañuy daje ci ndaje yu mel nii di liggéey ci yeneeni anam nuyu sëriñ Cheikh coro Mbacké moom it kom ni ma ko waxee yàgg nañuy bokk ay liggéey yu mel nii ci wàllum organisation di nuyu bépp kërub diine boo xam ne rekk teew nañ fi ñu ngi leen ñu wanale sànq di nuyu it bépp doomu soxna bu fi teew te it di nuyu ñi nga xam ne ñépp ñoo fi invité yi fi nekk yépp man ak délégation bi ma àndal ñu ràññee ci madame le préfet du département commissaire central moom it nekk ci wetam ànd ak euh, chef de service yi Moustapha Fall bi nga xam ne moo yor environnement ak team bi yor action sociale service d'hygiène aussi am na représentant ak Cissé bi nga xam ne moo nekk préfecture yore protocole donc tey dañuy am mbégte mbégte bi mooy li nga xam ne kilifa yi désidé nañ ko def ndaje bu mel nii ci région de Louga kon nag sunu mbégte la bi fi sëriñ bi yebalee comité d'organisation bi mu seet si ñu yëgal ñu mbir mi dañ ci am contentement bu mat sëkk ba nga xam ne dañ ko ne ah ñun kat dinañ def délégation ñëw tertu suñuy gan sargal leen ndax ñi fi ñëw ñépp suñuy gan lañ képp ku dugg ci région bi di ñëw di fekkee mbir yu mel nii ñun kat dañ lay boole suñu njaboot dañ la war a euh, euh, sargal war la dalal war la teeru di leen wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañu trop ci choix bi ñu porté ci région de Louga thème bi aussi dañ koy rafetlu parce que boo xoolee lu ko wund mooy bennoo te bennoo ñun mooy sunu baasu liggéey ndax euh, samay collaborateur ñu ngi fi xam nañu ko saa yu ñuy waxtaan sunu biir li ñuy wax mooy nañuy fexe bay bennoo booloo nekk benn pour mën a am ay résultats parce que bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk administration ñi ngi xiiroo di ŋaayoo résultats yu baax mënuta am donc ñun xam nañ ko ba nga xam ne toujours su suñu rencontre ndaje yi ñuy def dañuy insister ci bennoo boobu ba nga xam ne kenn du am ak nit xaar ba yàlla kon damay compléter aspect boobu conférencier bi di ko wax ne déglu nañ ko bu baax wan ko ne ñun tamit loolu mooy sunu base liggéey bennoo bi yemul kese si sunu diggante ñun fonctionnaire yi mais si sunu diggante ak askan wi parce que su ñu jëlee yenn décision yi suñuy kilifa lu ñuy sant mooy waxtaan leen waxtaan bi nag du sunu biir kese dina dinañu waxtaan ak collectivité territoriale muy maire yi ñoom it ci njaboot gi lañu bokk dina dinañu waxtaan ak góor ñi dinañu waxtaan ak jigéen ñi dinañu waxtaan ak kilifa diine yi dinañu waxtaan ak kilifa aada yi mooy waxtaan ak population bi pour mun a am benn kàddu muy bennoo boobu nga xam ne décision bi bu ñu ko jëlee kenn du ci gis lenn lu ko ci naqari ñépp dinañ ko appliquer ndoor xam ne lii kat bañ koy def ñun ñoo toogoon waxtaanee ko defandoor ko donc au niveau régional noonu la ñuy fonctionner nga dem bennoo boobu dem ba ci niveau national kilifa ya tamit. noonu ñu ñu santee niveau régional ñoom it niveau national noonu lañu ko bëggee balaa ñuy del décision ñoom ñi ngi toog waxtaan ak askan wi bennoo ndax bennoo boobu mooy tax suñu réew développé ndax réew bu am jàmm ñépp déggoo ku ci nekk xam la nga war a def développement dafay ñëw kon nag euh, duñu ñu ci sori torop mais wax ne thème bi dafa am solo ñépp la laal du ñun du du du askan wi kese ñu nit si askan wi lañu ñu bokk kon xam nañ ko ba suñuy doxalin dañ ko ci def donc di la gërëm di la sant ci ni nga ubbee ndaje bi wax la wax dëgg yàlla déglu nañ ko bu baax a baax rafetlu nañ ko bu baax te it sëñ bi suñu nekkee si ndaje yu mel nii okasiyon la pour ñu ñaanal réew mi ñaanal réew mi mooy d'abord ki jiite réew mi ñaanal ko jàmm ak salaam ñaanal gouvernement wam jàmm ak salaam ba lépp lu ñu mbébét ci askan wi sunu borom yombal ko di ñaan aussi nawet la ñu jëm ñaan ndox mi bëri te bu mu def yàq-yàq yu bari ñu ñaan bu ñu tolloo ci récolte it mu doon nawet bu baax mu mucc ayib bu mu am jéeya lépp li nga xam ne euh, euh, liggéey nañ ko fi rekk mu barkeel donc di leen gërëmaat di leen sant di leen jox seen wàccoo waaye di leen wax ni ñun kat mbégte la am tey ñu ñëw saafonteeg ñoom bokk ak ñoom bés bi wan leen ni wax dëgg yàlla lii kat kontaan nañ si fierté la ndax du région yëpp lañ ko defee dafa am région yu ñu tànn bu ñu ci boolee région de Louga ñun suñu fierte la suñu mbégte la di leen wan ne daal ñi ngi seen ginnaaw lépp loo leen soxla rek ñu ngi ci euh, kawam jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullah